ni ma mënta déggee damaa jaaxle ku nekk ak may envoyé vidéo yi journaliste yëpp ak may woo. Mhm. ma ne ko lan la mu a ma démb fekk xam nga bi ñu jógee euh, Kaolack dafa dama fàtte woon sama perruque. Mhm. parce que man bi may génn ci hôtel ba perruque laa soloon. Mhm. mais ñi ma àndaloon ñi ñu àndaloon ñëpp ak Fatou xaritam yi. ni ma ba bàyyil sa bopp bi nii moo gën a stylé ak euh, tunique bi nga sonnoon waaw tunique bi nga sonnoon. ma génn sama perruque def ko ci coffre oto bi léegi nag après bi ma le lendemain. Fatou ma wo woo muy nelaw après moom mu yeew woo ma nima ma sa perruque bi de mu ngi nima ki fek ma don dem anniversaire Tunde bi dimanche. Mhm. restaurant Jigo. Mhm. ma jaar fa rekk bi may jaar maa ngi fa fekk ñaa euh, mu jaaroon fa. ñaa xarañ waaw jaaroon fa. Mhm. am lu mu doon récupérer ci Fatou. comprendre nga. donc Fatou yëkkati 100000 francs di ko may ñuy toñante non donc ñaa bu xamone bu ko dugalee ni lay démé du ko dugal Fatou mayu ko lu 100000 francs te ñaa ku ne gis na ko day yor xaalis bu weex tal ay millions lay téye xëy na forek moo ko ci dugaloon Sénégal nañu xam ni fi ñu réew mi ñu toll réew teraanga la dañuy dimbalante rek te yàlla rek tax mhm. ku mën a dimbali sa morom dimbali ko mhm. te yàlla rek tax man man gisuma ci dara lu méchant faatu am na ñu naan ko sax ndax déggee sa bàjjan la Fatou sama rak la mhm. bi ma ko gëjee gis ak léegi ëpp na 10 ans Fatou Pikine la dëkkoon Hmm. Icotaf Fatou moo ma wëraat man ba gis ma ni Assane damaa bëgg nga Assane bu ni ko damaa bëgg nga indil ma Ndeye may dem may dem Kaolack mu ne Assane foo toll Assane ni ko maa ngi nii Ndeye Gueye moo may jël si ak otoom mu paas Assane paas ma ko mu ne ma mu yuuxu Ndeye Gueye namm naa la kaay sama hôtel ma jëlal la chambre ma ne ko noonoo damay dem fi gars yi nekk mu ne ma ñëwal fii looloo indi retrouvaille bi am encore hmm. fekk gëj naa koo gis sama rakk jooju mu yàgg maa defal teraanga mais moo ma cherché pour gis ma mu nekk nit ku baax nag aussi ku gëm boppam ku bëgg liggéey ku gëm Antoine Philippe Diome bi muy jàppale. Mm-hmm. Sénégal man daal wax dëgg yàlla. kon li wax àndoo ci quoi. ah waxuma ne ànduma ci parce que alalam la. Mm-hmm. ku nekk yaa moom sa alal ku la neex may ko. Mm-hmm. ku la neex may ko waaye ñi fi maye ay millions nag ñi fi maye ay million nag man tey bu ma amee ay millions. barke Cheikhul Khadim. Mhm. Jimbori mii ñëw taxaw seet si ma balaa muy dem ma jox ko teraanga parce que joxe laa xam xëy na sama gis-gis ak gis-gisu gaa yi bokkul. Mhm. sama xarit la nag sama rakk la. Mhm. waaw. ok Jimbori. waaw xam nga man Fuuta Tampi xaw ma waaw. comme Fuuta Tampi la doon wax léegi Fuuta Tampaani Tampaani waaw. Fuuta Tampaani la doon wax léegi Fuuta Tampi na ci moom moom. Fuuta Tampi la doon wax léegi Fuuta Tampaani la. Tampaani la ko mhm. waa léegi comme deme nag moom dem na ba nga xam ne nii léegi day yor xaalis ak di maye man loolu waxuma ci xam nga lan laay wax. Mhm. la mu doon wax ba nit ñu topp ko mu ngay continuer di ko wax ba léegi wala waxatu ko bu ko waxatul rek war na mais xaalis bu muy génnee di may nit ah waxatu ko ah kon de moom ah, dem na feneen fu ma ko xameewul man wax dëgg yàlla uto tàmpi daal na vraiment na dellu ca tàmpi ga moo gën quoi wax dëgg yàlla. noonu waaw ah. man tamit ku ko bëgg la dinaa ko fi dalal leen di dinaa ko fi dalal lundi incha allah. ku tam bi daal loolu mënumaa wax si moom dara ak na jàll. <laughs> ok sixième euh, kii bi kaa bi maa la bëgg moom mooy euh, ku ne gis na démb. <laughs> maa la raw mënu koo fay. <laughs> ku ne gis na démb affrontement bi nga xamante ne moo amoon ci diggante force de l'ordre yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les étudiants mais lu ci gën a yéem nag booy bi nga xam ne moom moo taxawoon di dékku. li nga xamante ne moom moo di lacrymogène yi bal yi ñu di ko kii kooku moo jaaxal sénégalais yi pourquoi affaire yi dalu ko Jimbori nday kan la booy bi taxawoon nii gendarme yi di ko seetaanu ma ko sànni ay lacrymogène ak ay seetaanu ma ko kii laa koy wax léegi léegi mais seetaanu ma ko ok Jimbori lan ngay wax ci loolu xam nga lu ma wax xam nga étudiant yi mhm. wax dëgg yàlla dañ leen a war a dimbali étudiant bu ci juum ba seet si la sax musiba dal la dinaa la wax seeni mbir. Mhm. parce que tey jii xoola nit da bu nekkee lycée da ngay gis sa doom day jàng ba dem lycée nekk jàmbaar. bu mhm. demee ci université. Mhm. mu mel ni day université jàng yóbbuwu ko fa. yow sax da ngay gis xale bi mel ni luy dellu ginnaaw xam nga lu ko waral benn classe bu war a def cinquante personnes ñu def si quatre vingt douze mille personnes xam nga dafa bari xata <laughs> xat ba nga xam ne buñ doxatee du génn xam nga loolu. ay jimboori amal rek waaw waaw ay kilifa ñoo lay seetaan ngir yàlla. yaa man dama dul kilifa. non yow doo kilifa parce que boo doon kilifa ni ngay waxee ni doo ko waxee. waaw xoola ndéygay may ma yaa ngi dégg xoola saal bu ñu def quatre vingt douze personnes yaa ngi dégg tànn benn waay ne ko seen lekk ñaata la ñu ne la 1 milliard nga dem joxe 600 millions cote 400 millions ke an kan ka rang tamit bëgg ci am dara di len togal togg yu forox yoy boy mëno leena jangal sax laajal metari boy bo ci wan uh, ki uh, uh, leçon bala leçon ba yeex mu dem duus hmm dañuy poub rek parce que liñ leen di jox lek yé baaxul dem ba gis ko wala dañ la ko expliquer dañ ma ko expliquer lek yé baaxul am na si ñoo xam ne bu ñu jógee cité sax ñëw si kër ñëw seen kër dañuy mel ni ku jëfru lekk yi dañuy piit di di ñoox xoola condition yi ñu teg seen doom yi nañ ko tegal élèves yi ñu jàng parce que gis nga tey bu ñu la dénkee ay xale tey ji boo ma doon dénk sa doom war ngaa xool nu ma téye sama doom ba pare dañ daan wax ni ku jurul doo yërëm mais da ngay gis léegi ku jur ba pare du yërëm te xale géej gi la boo weeree doo xam kuy weri ba pare gis nga ndaw sa ndawi réew mu ngi mel ni nga dugg ci géej ray xal ray jën yu ndaw yëpp bàyyi fa jën yu mag yi mhm. su ëllëgee est-ce que di nga am ay ay jën dootoo am jën mhm. booy yi nañ leen mettre en valeur mhm. jàppale leen ñu jàng fi ñu war a dem ñu dem fa li ñu war a lekk nañ leen ko war a wax bu dugg pa wuy ma li ñu waaw maa tey yaa ngi dégg waaw dégg na ñu war a lekk ñu jox leen ko. bëgg a lekk doo lekk bëgg a naan doo naan xam nga ni booy boobu taxaw. di dëkk ay grenade loolu moo ma jaaxal lan ngay wax ci loolu aussi tamit. mais li mu yëg bay xaar grenade yi. loolu la ay nit doon yëg fii bay jël seen jëmm di ko teg ci ndox. leen bu leen pàtte ñenn ñi dañ naan booy bi est-ce que raxul dara aussi tamit. raxul dara. lan la doon def moom yëg yëg la yëg yëg bi. ani image bi. yow xoolal loolu yëg yëg la yëg-yëg la xanaa am loolu léeg-léeg nit toll foo xam ne da koy kaata du ko yëg. université Cheikh Anta Diop waxal mm-hmm. danga nga fay toll. waxal bu ñu toogee ba booy di dékku loolu. nañ leen yërëm daal waxal rek. Mm-hmm. nañ leen yërëm nañ leen yërëm ba pare fii. violence bi ñuy def ci école bi moo normalul da ngay jàng ba yëy kayit mujje di jaay kafe góor jàng ba yëy kayit péemi lañ lay jox. mbaa mais ñëpp aussi tam mënuñ toog ci bureau yi. nga ni ma ne ñëpp aussi tam mënuñ toog ci toog mais ñoom kan lañ toogal ci bureau wan ma ko. loolu solution la wax ju ndaw bi xoola am na wax yoo xam ne su ma doon yàlla dama su ma leen mënoon a rey dama leen di rendi. Mm. pourquoi. parce que olof day créer ay wax yoo xam ne da koy wax nii rek pour dugal ko si bopp nit pour lëm xelam mooy ñëpp mënuñoo toog ci biro kan lañ teg si bureau. 1960 ba léegi ñu doon liggéey mais ñëpp mais ñi doon liggéey ñooy liggéey ba léegi ñëpp mënuñu toog ci bureau. ay pas damay wax rek il faut ñu yërëm leen tamit. il faut étudiants ñu yërëm leen ñu bayi xel. Mhm. il faut ñu leen ñu bayi leen xel. Mhm. c'est très important. Mhm. gisoo Omar pen ba mu étudiant étudiant laa il faut woy boobu tamit ñu koy xel. il faut ñu dimbali leen. xaw ma lu ñuy yori réew mi ëllëg. yori ngi ñaan président de la république na gestu étudiant yi nañu gestu étudiant yi c'est très important nañ leen nous xel aussi tamit wi ma li ngay gàtt dégg-dégg yëpp Omar Pène daa nga ko dégg muy way naan Rwanda mii buñ ci jógul mu tax bu Burundi moom tamit moo ngi yëngu daa nga ko dégg <laughs> ay temps ah. waa Rwanda hmm. dañoo xiifoon ba mel ni golo yu si daa xoola ñooñu yàgg na mais ñooñu romb nañ la fi fañ tolloon yaa fa toll yow yaa njëkk yeewu mujjee sël mu Sénégal hmm. waaw day bàyyi waaw xoola ñi nekk ci làmb ji nii. Mm. léegi ay borom diplôme yi ñoo fi nekk. xoola boo nekkee ci koñ di jaay kafe jàng ba ni ar di jaay kafe mm-hmm. benn benn benn Aline Ndiaye romb la dem géej entrene ji am combat di million da ngay sànni kafe gi dem bëri. Mm. ñoom ni ñuy korompoo booy yi ñuy dugg ci ay bëreek di wër di taxawaalu ñoom xam nañ système bi 1960 ba léegi ay paa yu xoju di làkk français nga fi am ñoo génnee pétrole xamuñu fu gaz di génne xamuñu dara tous ñu doon liggéey ba tey ñooy liggéey am na ñu xam ni. assemblée nationale xabru lañ ko bëgg a def xabru. kon yow astafurlaa ñëwal yow xabru kon yow dafa. booy liggéey di liggéey di liggéey ba bëgg faa am téeméeri at loo nar. Mhm. lan nga nar. kon yow da ngaa jàpp ne étudiants yi dañuy dem fee rek di sonal seen bopp mais duñ toog ci bureau yi duñ yor benn réew. xool wax ma kuñ ci jël. bari na bari na ñu génn jëluñu ci kenn ñu ci jël xam nga fan lañ la jomee mm. ay poste poste yi ñu la war a jox duñ la ko jox ña war a yor poste yooyu poste yu baax yi mm-hmm. poste gor ñi Sénégal jàppee ay ñoo mm-hmm. ñooñu yóbbu nañ leen ci Europe du ñu dugg ci circulation bi di sonn duñu ñu xat-xatloo du ñu manqué dara dañuy lekk ba suur dañuy sol yére yu set ñooñu ñu nga Europe di jàng de ok kaawu booy bi boo ci dikkaatee xam nga yow seet del déglu del xool